wajjahtu kulliya bihamdin wa sukur ila waliyil mu'minina wa sakur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 mbokki nit baaxoo dañuy topp ci seen seen bi di Wilaya TV saa su nekk ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci safoo gi mbokki tey la alxames yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre atum 2022 ñoo ngi fii ci Daaru Xuddus ci bis bi nga xam ne kuréel gi di itaadu at bàyyil xadim di taawun wa tamassuk bi dinil xawim section bu Touba wilaya di amal at bu nekk bisub ñaanal mboolem jullit yi dawlu ji ren ji nag yemoo fukkeel bi yoon ak juróom ñu di ko amal xam nga ne bis bi saa bu jubsee niñ ko baaxoo waajale ci jàng alxuraanul karim xasida istixfaar salaatu ala nabi waaye dañ koy ànd ak mbooleem daara yi ànd ko ak mbooleem daara yi ci biir dëkk bi ak yi wër dëkk bi muy waa rabita bi ànd ko ak mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo ci biir dëkk bi di daara yi fi nekk su mel ne daayira Muxaddamatul Xidma bi yor liggéey bu jumaay Touba daayira islaahu daara ni kër Sëriñ Mbàkke Madina ak daayira bu Safiatul Amaan bu Kéré Mbay ak mboolem kuréel li nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi bis bi nag bu ñu xëyee dañ koy defee mooy dañu dajee ci mbaar mi jàng alxuraan karim xasida istixfar salaatu ala nabi ak bernde waaye tamit suñu demee ba euh, tàkkusaan sëriñ bi dana génn diggante ak mbooloo mi waaye noonu la ko commission sociale bi di amalee ci don de sang bu am solo boo xam ne huit heures lañ koy tàmbali ba treize heures muy di taxaw suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo tëdd ci lal hôpitaux yi te soxla li nga xam ne moom moo di deret mu bis bi ñaari programme yooyu la mooy jàng alxuraan karim xasida istixfaar salaatu ala nabi waaye tamit ak maye deret ngir dimbalee ko ñi nga xam ne ñoom ñoo koy teewoo kon daal lii mooy bis bi nga xam ne mooy journée Waye Dawla bi kon ñu ngi leen jox dig daje incha allah lépp loo xam ne dana bàyyi ko fii ci journée bi di leen ko am ci Wilaya TV yi jaa jëf جميع الأنبياء ورسل بالتسليم واذكر كتيا نافع سل والتسلم بقران على النبي والآل وسعد الكرام صلاة سلحة العظيم سمدي على النبي bismillaahi rahmaani rahiim barakat Cheikhil Xadim mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñoo ngi ñëpp te di leen ziar ñoo ngi ñaanal ñëpp yërmande suñu borom ak njëggalam ñoo ngi fii tey ci Daaru Xuddus ci kër Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma maye darat dara taxu koo jóg itam nag lu dul rek bëgg a ak mbokk yi nga xamante ne ni dañoo wéradi te di ko soxla. te deret doon loo jafe loo xamante ni ci doomu rek lañ ko mën a jëlee mënee su ko jënd amut fabrique bi koy liggéey te waxtu wu ci nekk doomaadama da koy soxlawoo hôpital yi waxtu wu ci nekk dañ ci am jafe-jafe ci banque de sang bi doon mbooloo nag mu takku doon mbooloo mooy tam nit ñaa ngi ñuy bàyyi xel ñuy def ay action yoo xam ne dañoo bëgg mbooloo yi dañu ci roy di jaayante ak yàlla. dimbali bokk yi nekk ci barab yooyu di organiser ay don de sang loolu lañ ci jublu nun nag nu lëkkale ko ak bis boo xam ne bisum ñaanu way daw yi la muy bis boo xamante ni ni sunu yéene sunu pas-pas mooy ñaanal bokk yi nga xamante ni dañoo jiitu ji yërmaande yi sunu borom mooy sunu borom defal leen ak njëggal ak yërmaane ndax ñoom loolu rek lañ soxla te loolu lañ leen deseel muy rëcc rëcc yi nga xamante ni doon nañ ko def ci àdduna ak yenn ci ay tolof tolof yoo xam ne doxoon na seen diggante ak doomu aadama yi ñu bëgg képp koo xam ne des nga leen gannaaw te amal leen àq nga jéggal leen ko suñ borom itam defal leen ak njéggal ñi fi des it suñ borom bañati leen a dara loolu daal mooy sababu ñu ñëw fii di maye dara. man maa ngi koy maa koy doo ko def tey jii laa koy doog a def. dégg ñu ne ak jaamu yàlla lu baax la rek la moo waral ma ñëw tey jël décision pour may si deret ji waaw jàpp ne lu baax la rek lu baax la comme ñun moom rek moo ñu tax a jóg. nga xam ne mayeeguñ deret waaw ku xamante ni mosoo mayee deret maa ngi lay fàttali rek ak bëgg noo noo mën a ma fexee ba mayee nga maye ndax lu baax la ak jaamu yàlla la comme ak jaamu yàlla nag ñun ñëpp nañ ci fexe di di ko def. bis dana ñëw nga soxla deret loolu moo tax. kenn ko ne war koo defal sa moroom ndax bis boo ko soxlaa ñu mën la koo defal rek. jaamu yàlla la nga fekk sa doomu moroomu jullit mu ñàkk deret nga may ko rek jaamu yàlla doy na sëkk. dimbali sa mbokku jullit moom ak jaamu la goo xam ne sooy doomu aadama te maam xafu la ci ci ak jaamu yàlla moo tax ñu ne daal nañ ñëw euh, def li xam ne ndigal la rek ci. si kenn ku ne sa mbokkum jullit loolu rek loolu loolu kese la mooy mu jubluwaay bi. liggéey bi am na solo lool liggéey bu am solo la boo xam ne ñëpp dañ ko war a taxawee ñëpp dañ leen cee war a roy tamit muy lu baax loo xam ne liggéey yàlla la daal te ak jaamu yàlla ku kawe la tamit ñu ngi leen ci gërëm bu baax dinañ sant المنتقى